commission sociale di benn ci wànqaas yi aju ci mbooloo muy liggéeyal Serigne Darou Assane Ndiaye niñ koy defee at mu jot ci waajtaayu màggal gi amaaleti nañ mbir mu am solo loolu nag du lenn lu dul mayam deret moo xam ne ni saa su nekk dinañ ko def ngir waajal ko màggal gi buñ sukkandikoo ci kàddu yi bàyyeekoo ci Serigne Fallou Ndiaye mi nga xam ne ni moo jiite commission boobu mbir mi kat du guléet dikkaat na ci lu yaatoo yaatu lan moo tax ñu def jëf ju am solo jilee ñu ngi ànd ak waa euh, hôpital bu Ndaamaatu ngir def don de ngir dimbali askan yi nga askan askan bi nga xam ne yàlla dogal na ñu nekk ci hôpitaux yi sonn trop te soxla deret pour nga gis ay nit juge jug di ko maye day xaw a difficile te comme que lu baax la te li ñuy def suñu sëriñ moo ñu ko sant rafet na jaaru na ñu taxawaay taxawaay bu am solo boo xam ne képp ku bokk ci kër gi ak ku bokk ci kër gi sax dana ci gis boppam ndax maye deret ak jaamu yàlla mayem deret mii ñu ànd ko ak kër docteur gi féete ndaamaatu ña leen fa teewaloon rafetlu noonu loolu jëf ji ginnaaw bi ñu dikkaatee bu baax a baax ci liñ doon seen séentu ak liñ fi gis mu kowe seen jort docteur Kébé mi leen jiite gën na ci andi ay leeral. mën nañ ni objectif atteint nañ ko sax ba carrément ñuy dugg si nga xam ne sax ëpp na lañ lañ xaaroon ndax booba léegi ñu ngi doon coordonné ak sëñ Fallou Ndiaye mais bi ñëwee waxoon nañu mën nañ mayee lu toll ak cinquante maam juróom fukk te boobu léegi mat nañ si juróom fukk te ñu ngi ñu ngi ñu ngi continuer di gën a di gën a jël deret ça veut dire que mën nañu am sax ba 70 euh, personnes yu pour mën yu mën a maye deret quoi wax dëgg ne yàlla euh, objectif yi sax mën nañu ko wax dëgg ne yàlla liñ liñ prévoir au début. nañ carrément massivement léegi ñoom sax fi ñu ñuy xaar ñu commencé ak ñoom booba léegi te mbokk yi dañuy ñëw saa ne am na ñuy ñëwaat waaw wis nañ wax dëgg ne yàlla niñ ko niñ ko foogee woon quoi maayam deret nag nekk mbir moo xam ne ni lu am solo la ci jàppalante ci askan wi waaye nag nekk ak jàmm yàlla docteur Kébé mi nga xam ne ni moo doon taxaw opération bi gën na ñaax askan wi bu baax a baax ngir ñuy maye deret mayeem deret nit ñi dañ koy xaw a ragal xam nga nit mu bu gisee sa deret di génn dañuy fonne tamit am na lu mu la gàllankoor si ñoom te yàlla dogal na du gàllankoor ndax lu njëkk mooy deret bi nekk sa deret bi ah, nekk sa yaram bi saa su ne day day changé lu toll juróom ñetti ñetti ñetti weer ba ñeenti weer day changé defar deret boobu day defar yeneen deret kon loolu soo ko mayee woon di nga mën a dimbale nit parce que nit ñoo ngi koy mayee mooy tey jii boo ñëwul hôpital fa ngay gën a xam solo bi danga nga fekk jigéen ju wérul ñàkk deret bu bëri aussi ko am accidenté ñàkk deret bu bëri ku am feebar roño ñàkk deret ju soxla deret donc deret rek moo ko mën a dimbale li may wax saa su ma nit mën na feebar ñu bind ko ay garab mu dem pharmacie jënd ko garab yi mu naan ko mu wér mais feebar bi nga xam ne daa ànd ak ñàkk deret kooku amul benn garab boo xam ne mën na la def ba deret boobu ñëwaat donc ni may la deret dong moo tax euh, deret boobu mën a ñëwaat donc nit ki maye deret bi mayee dina dimbali ay nit ay bakkan yoo xam ne soxlaw ne ko wax dëgg yàlla donc am na solo boo xam ne ëpp na ni nga ko mën a natee parce que tamit suñu borom ngay liggéeyal te aussi saa suñu borom côté boobu noonu euh, fay googu amul lu amul lu ko ëpp quoi wax dëgg yàlla. ñenn ci ñi nga xam ne nii ñoo féete ci kër gi rawatina kilifa yi foofee ca Daaru Njaay ginnaaw bi ñëwee maye deret ba pare ñoom kat ñu ngi rafetlu bu baax a baax jëf ju am solo ji nga xam ne nii commission sociale def na ko mbooleem askan wi rawatina ñi nga xam ne nii dañoo aju ci kër Serigne Darou Assane ngir yu demee nii bu amatee kenn bañ leen caa jiitu. lii de dañ koo jàppee maam jaamu yàlla te tamit lu ñu lu ñu war la euh, da xool euh, ka tëdd sa hôpital nga xam ne mënalut dara boppam suñ borom dénk ko yenn wërsëg yu mel nii rek ci la ñuy mën a profité def si lu baax. mu nekk lu am solo nag loo xam ne kenn kum ci mën a doon tey nekk ci ay kuréel nekk na loo war a def ndax deret kenn du ko jënd te xam ngeen ne waxtu wu ne dees na ko soxla ci moment bu mu ci mën a doon ndax hôpital yi li ci ëpp manqué le nañ ko waaye sens bi ci Touba am mooy daayira yi ñooy dimbali hôpital yi fi nekk ba banque de sang bi nga xam ne moo nekk fii bari na ay banque de sang yoo xam ne moom ñu bari ci fi la ñu jëlee kon ñun luñ ci góor góorgóorlu doyut te dañ cee war a taxaw bu baax a baax. maa ngi soññi bépp taalibe rawatina ku yaakaar sëñ Daaru Asan ñu maye deret ngir jëmmi yàlla ak jëmmi sëñ Daaru Asan mi nga xam ne moo tax ñu daje fi ñun ñëpp kon loolu yiw wi ci nekk lépp te yàlla diggu ko ci yàlla nañu yàlla tasale ak moom di sant mboolem ñi xam ne jaar na fi def ni ma def nag mooy ñëw ñu consulter leen ñu maye deret ngir jëmmi yàlla ngir jëmmi sëñ Daaru Asan loolu ñuy sant ñëpp di gërëm ñëpp di jaajëfal comité social taxawaay rafet yi ak médecin yi ko àndal ci wayef gi ci yaatal gi ci lépp rek ci jàppale gi nga xam ne jàppale nañ ko commission bi di commission sociale te lépp rek aju ci liggéey sëñ Touba bi ci biir dëkk bi di Touba kon yàlla leen yàlla fay ñoom it ñoom médecin yi. mu nekk benn ci jëf yi nga xam ne ni commission bi aju ci mbooloo mi taxawal màggalug Serigne Darou Assane Ndiaye amal nañ ko muy commission sociale gannaaw may deret gi nga xam ne ni amal nañ ko amal nañ itam yeneen activités yoo xam ne ni saa su nekk dañ koy def ngir dundal bis bi waaye itam liggéeyal Serigne Darou Assane Ndiaye ci anam yépp ci fàttali rek màggal gi ñu jàpp ko ñaar fukki fan ci weeru janvier 2022 di bis bi nga xam ne ni saa su nekk moom la ñuy fàttalikoo góor yàlla gi di sëriñ Darou Assane Ndiaye yàlla na suñu borom yokk ay leeram taas ñu ci barkeem